أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ixwaani asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu comme nin ko baaxoo di def ñu ngi ak yéen ci suratul baqara di jël tey aaya 26 aaya 27 ñaari aaya yi nekk sunu kanam dinañu jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy ann alxayaa laa yambagi an yamnaa min fili lmaaruf wa qawlihi wal amru bi mooy kersa du tere doomu aadama mu jëf lu baax walla mu wax ko walla mu digle ko walla mu nekk jëfam loo am kersa am kersa am kersa kersa waru laa tere def lu baax au contraire ki am kersa sax moo war a def lu baax kersa nag dafa jeex tey ci kaw suuf bokk na ci liñ fi jële loolu dinañ ko jàng tey ci sunu dars bi kersa warul tere nit def lu baax wala mu wax ko ah man ne damaa rus ba mënuma koo wax du dëgg rus warulaa tere mën a wax dëgg man ne damaa rus ba mënuma digle lu baax ni war nañ laa seetal ñaareel bi mooy yustax yustahsan darbul amsal li taqribi almaani ila al izhaani bëgg nañ kiy wax ak nit ñi di communiquer ak ñoom ku mu mën a doon bëgg nañ ci communication ci wax bi muy wax ak nit ñi mu ci joxe ay misaal jàkka ji am na coow de jàkka ji am na coow yustahsan darbul amsal dañu sopp kii wax ak nit ñi muy joxe ay misaal ngir lan ñi muy dégg maanaa yi gën leen mën a jege tey bu ñuy wax ak doomu aadama yi naan leen gis ngeen bu ngeen demee màkk boo yégee xeeru safa boo de loolu da ngay wax fi ba suba rek nit ñi dañuy imaginer dinañ jël ay image mais du jege mais boo leen ne xool leen lii seen ginnaaw ñëpp gestu teg ci bët day gën a jege gën a ñu mën a dégg li ngay wax comme yàlla tabaraka wa taala ni mu koy defee ñetteel mooy iza anzala allahu xayran min alhuda wa gayrihi yazdaadu bihi lmumin hudan wa xayra wa yazdaadu bihi lkaafiruun dalaalan wa charran wa dalika li isticdaadi lfariqayni annafsi almuxtalif nee na yàlla tabaraka wa taala bokk na ci li ñuy jëlee ci aaya yi ñaari aaya yi nekk suñu kanam yàlla tabaraka wa taala bu wàccee yiw lu baax ak leneen lu mel ni moom ñi gëm yàlla dañ ciy yokk ku gëm yàlla saa yu déggee yàlla wax dara yàlla wàcce lu baax ak lu mel ni moom su ko gisee loolu daf koy yokk moom ku gëm yàlla waaye wa yazdaadu bihi lkafiruna dalalan ñi wedd yàlla moom loolu da leen di yokku réer bu benn kéemtaan amee wala yàlla wax wala ñu gis benn mbir ci mbiri yàlla yi au lieu ñu yokk kéemtaan waaye da leen di gën a réeral ndax dañuy nekk di diingat loolu di ko weddi ba kéeféer fekk leen ci loolu dinañ ko jëlee ci aaya yi ñuy ñaar a jàng sunu kanam mbokk yi lu tax nag ku gëm yàlla lu baax di ko yokk yéeféer lu baax di ko wàññi lu tax mooy ñaari nit ñi ñoo bokkul ñaari kuréel yi bokkuñ bokkuñu balluwaay bokkuñu fu ñuy naanee bokku fu ñuy rootee bokkuñu jëmukaay loolu moo tax kenn ku nekk li lay jëriñ day lor sa moroom ku baax ki lu bon daf koy lor ku bon ki lu baax du ko jëriñ mbokk yi ñeenteel bi mooy at tahzir min al fisq yàlla daf ñuy tere ñu nekk ay kàccoor lan mooy kàccoor mooy génnuk topp yàlla santaane ne def leen nit ñi lànk bañ a def képp ku dégg yàlla nee na def leen mu bañ a def rek yow kàccoor nga ak koo mën a doon nag ak koo mën a ne yow kàccoor nga mbokk yi yàlla daf ñuy tere ba tey ci aay yi nekk sunu kanam ñuy fecc kóllëre kóllëre ñu koy fecc wax ak sa moroomu nawle wax ak yàlla wax ak yonent bi wax ak ku mu mën a doon ba ñu am yaakaar nga fecc kóllëre gi loolu yàlla daf ñu koy tere ci aaya yi nekk sunu kanam waaye yàlla daf ñuy tere qatul xayr mooy arrêté lu baax lu baax moom ku ko mën a def ku mu mën a doon rek amul limite même ñi ngi koy defal buñ ko gisul yow waroo koo arrêté war di continuer bis bu nekk yàlla bu ñu toppoon asamaan dootul taw yàlla bu waxoon ne man dey nit ñi maa ngi leen di tool guddi bëccëg rek ñu may may xaaral ma téye ko yàlla xool duñ topp kon ixwaan wa man il maaruf aayey ba tey ñuy jàng dañuy tere ñuy xañ lu baax kuy baax lu baax lu nekk def rek lu baax moom def rek lu baax def rek kon ñaari aaye yooyu mbokk yi ñoom la ñuy jël tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون يقول جل وعلا بورنينا إن الله نك يلا يلا ما يوحن يندي إن الله نك يلا لا يستحيي دو كرسو يلا دروس دو كرسو كرسا دو كو تري واخ لي موي واخ كرسا دو كو تري ديف لي موي ديف kersa du ko tere wàcce li muy wàcce amul kenn ci ñun ku yàlla di rus ba yàlla li mu bëgg a def du ko def bu yàlla doon rus kon dina rus keroog yonent yàlla nuux ba muy alak monde nuux doomu nuux yàlla ne ko doomu papaam ne ko yégal ci gaal gi mu ne ko déedéet sa aawi ilal jabali yaasimuni minal ma papa bàyyi ma ma yëg ci montagne bi dina ma aar mu ne ko doom tey laa asima min amrillah tey kenn du mucc ci mbëggeelum yàlla mi ku duggul ci gaal gi ñoom ñaar ñuy wax rek yéegal bul yéeg yàlla mu ne wa xaala baynahuma mawjun benn vague dóor seen diggante yàlla ne vague bi yëkkati doom ji ba ci kaw dóor ci suuf doom ji daal di jaxasoog ndox mi daal di dee nuux daal ne yàlla inna ibni min ahli ay yàlla sama doom ci man la bokk de yàlla mu ne ko innahu laysa min ahlik bokk la ak moom tus gis nga yàlla yàlla amul kersa mbokk yi yàlla amul ku muy rus gis ngeen yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam keroog ca gazwatu uhud ba ñu reyee hamza rey musab musab ibnu umayr rey sahaaba yu bare bari dóor yonent bi ba mu daanu ba casque bi mu soloon casque bi dafa tañ ci bopp bi sahaaba bi doon dindi casque bi di ko matt ba mu màttee casque bi xëcc sànni benn bëñ dafa teggee ko mu màttaat xëcc beneen bëñ deñ ndax casque bi nu mu tancee bopp yonent bi óom yi xureeku moom yonent bi bëñ bi daal di damm fell toj ndax dóor yiñ ko dóor lu ko gën a metti nag mooy mu gis ñu rey pàppam bu ndaw daggate ko mu ne dinaa def ci yéeféer yi naa jàpp ñoom juróom-ñaar fukk def ko ni def leen nii yàlla ne ko laysa laka min al amri shay mbir mi nag du sa mbir yow muhammad ñi def lii sax buñ tuubee ma baal leen laysa laka min al amri shay'un mbir mi du sa mbir kon mbir mi mbiram la moom yàlla yàlla amul kees bu yàlla doon am kees kon du wax yonent bi abasa wa tawalla yaa ngi ñëkkal sa kanama nga gis benn benn gumba di ñëw ci yow rek ndax yéeféer yi bon yi nga toogal tax nga bëggoo gumba gi ñëw ndax dangaa bëgg yéeféer yi tuub ah ngay ñëkkal sa kanam pour gumba gi demee toogee ne le ba nga recevoir kilifa yii ba pare yàlla mu ne xanaa xamoo gumba gi moo gën yéeféer yi ñi duñ tuub abasa wa tawalla an jaahul ama mooy silmaxa abdullah ibnu umi maktum mbokk yi yàlla amul kersa yàlla du rus lay rus ci nit ñi moom moom moom jaam yi yàlla lu mu bëgg a wax wax lu mu bëgg a def def ko ndax mbiram yépp dëgg la inna allaha yàlla laa yastahi du kersawu laa yamnauhu lxayaa kersa du ko tere min darbil amsaal ci jox nit ñi ay misaal yu leer yu leen jege pour ñu mën a war jaamu yàlla moytu bokkaale ak bidaa pour ñu mën a kennal yàlla tabaraka wa taala nee na mbir moomu yàlla di joxe misaal sax lu mu néew néew néew ba toll ne yoo yàlla bu ko neexee mu xam nga yéeféer yi bi ñu déggee ñu ne yàlla mu ngi wax mbiru yoo ñu ne yoo yoo ak ni mu ñàkke fayda yoo ak ni mu yambaree yoo ak ni mu doyewaar boo ko bu ko ngelaw ëffee sax mu dee boo ko dóoree sa baaraam mu dee boo ko tàccoo mu dee yàlla di ci joxe misaal ak yàlla bàyyi fi lépp bàyyi fi ñoom ñey ah ñoom njamala ñoom gaynde naan yoo yàlla Muhammad mii daal jaaxal na nit ñi ndax yàlla mu ne mbir yëpp maa leen moom maay borom lu ma neex ma joxe misaal lu la lu ko neex moo moom lépp ku moom lépp lu ko neex mu joxe misaal ci lépp comme moo ko moom xam nga loolu lu ko waral nit ñi comme nit ñi dañoo tuuti ku tuuti boo defee lu ngand day ngand ci yow nga bëgg ñëpp gis ne lu ngand la parce que da ngaa tuuti mais ku ngand soo defee lu ngand yi du ngand parce que yow ngand nga ba pare yàlla nag ngand la est-ce que dégg ngeen lim bu ko wax ku tuuti mooy def dara bëgg nit ñi ne ak a ngande mais ku ngande du benn ku ngande moom lu ngande bi day ngande rek parce que daa ngande ñëpp xam nañ ne kii ngande la yenn saa yi ñu ne diw de moo may diw oto bii ñu ne ah kooku de mën na ko mais koo xam ne musul musul may oto ñu ne ah ñu ne pourtant moo ko gën a aajowoo de moom ne mu la ko may moo ko gën a soxla gis nga dafa seytaane rek parce que moom ne moo la ko gën a aajowoo gis nga mais am na koo xam bu ñu tuddoon turam rek ñu ne ah kooku moom mën na ko kooku moom mën na ko gis nga parce que du benn yàlla tabaraka wa taala nag moom laa yastahi du kersawu an yadriba mathala muy joxe ay misaal di mel ne kuy léebal nit ñi wala mu leen di jox misaal naan leen xool leen afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat xool leen gëléem naka laa ko bindee fal yanzuru insaanu ila taamihi doomu aadama na xool lekkam fal yanzur il insaanu mimma xuliq doomu aadama xoolal lan la ko yàlla binde yàlla day tourner pour ngay pour nga xool lu nekk mu la koy xooloo wa ila samaai kayfa rufiat xool leen asamaan nu ko yàlla yëkkatee wa ila jibaali kayfa nusibat montagne yi li ko yàlla sampee yàlla day tourner xelu nit ñi di joxe ay misaal alam tara kayfa faala rabbuka bi aad xoolal yàlla ni mu def waa aad xool lu mu def waa samuut xoolal xoolal yàlla di la xooloo pour nga xalaat ci sa xel léeg-léeg mu ne la xoolal asamaan ñu bari ci ñun bu leen yàlla waxee xool leen asamaan bu ñu nee nii suñu ne loo gis ñu ne dafa bleu loolu rek mu ne waaw dafa bleu bleu am na lu weex pare na ci xool leen montagne yi ñu ne dafa ngande nit ñi moom comme nanguñu nanguñu sonnal xel yi nanguñu sonnal xel yi pour xel yi xalaat yàlla moo tax suñ la nee xoolal benn mbir rek ngay gis xoolal borom bi tabaraka wa taala ci suratul mulk mu ne awalam yara ila tayri fawqahum saafatin wa yaqbidna maa yumsikuhunna illa arrahman allahu akbar mu ne xool leen picc wala ngeen xool avion mu ne mi ngi seen kaw tiim leen ci kaw jaww ji mi ngi tàllal ay laafam avion ndax day képp laaf yi ndax avion day naaw naan ni avion noonu lay def nii rek lay def laaf yi du def nii de yàlla mu ne maa yumsikuhunna illa arrahman man yàlla maa ko téye ah xoolal géej xoolal géej inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi lleyli wannahaar walfulki allati tajri fi lbahri bima yanfau nnas wama anzala allahu min alsamai min main faahya bihi larda bacda mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifi riya wa sahabu lmusaxar bayna alsamai wal ardi la ayatin li qawmin yaqiluun wala yàlla jaxase ay mbir yu bëree bëri ba aay di jeex mu ne lii yëpp ma lim kéemtaan la pour ñi am xel ñi am xel parce que xel yi il faut ñuy xalaat xel yi xel yi ñu xalaat moo tax yàlla di joxe ay misaal inna allah yàlla laa yastahi du kersawu ay yadriba masalan mu leen di indil ay misaal mu ne maa baudatan lu toll ne yoo fa maa fawqaha wala lu ko gën a kawe bu ma neexee ma joxe misaal ci yow an yadriba masalan an yajala shay'an masalan yàlla jël dara joxe ci misaal lu tax pour nit ñi daal di ci mbir moomu yàlla joxe misaal nit ñi am luñ ci mën a génne ci ay melokaan yu baax wala yu bon léeg-léeg yàlla joxe mbir misaal wala sàngara yàlla joxe misaal mu ne am na ci sàngara am na njëriñ ki ko jël def ko raisin di lekk kooku njëriñ lam la ci moom mais ki ko def sàngara tamit di ko naan est-ce que amul ko njëriñ moom lan la ci soxla dafa bëgg a màndi kon amal na ko njëriñ mais daa araam léeg-léeg nga ni nit njabar dafa araam mu ne la moo araam fu mu araamee gisoo diw dañ ko njabaroon mu dem ñu njabar dindi ko kon njabar dara nekku ci non yàlla waxu la ne amul de mais dalee ne am na mais dafa araam ku ko def yéeféer ngay doon léeg-léeg ñu ne la sàngara day faj kenn waxu la du faj mais dañ la ne dafa araam amoo droit naan ko amoo droit fajoo ko loolu lañ la wax nit ñi nag boo leen ne dara dafa araam ñu ne pourtant man am naa ci xaalis PMI dafa araam ñu ne man gagné naa ci 3 millions te aw ma woon dara tabax naa ci jàkka sax dem naa ci màkk mais daa araam parce que setut ni nga ko amee moo baaxul moo tax ñu ne daa araam yàlla misaal yooyu la ñuy jox pour ñuy tourner suñu xel yi pour ñu xam ne ñun ay nit lañ pour ñu mën a dégg bu baax li yàlla tabaraka wa taala di wax dafa garaaw rek ñu ne la xoolal miir bi ngay dafa weex rek pare point final mais yow lu weex li la nga gis mais avant muy weex lan moo ko composé ba mu nekk miir loolu yëpp ci xalaat bi la bokk mais ñun ay idée arrêté lañ yor moo tax alxuraan duñ ci jëriñu yàlla li mu wax ñun dañuy yem ci nas bi nii rek daal di dem caa jàpp suñu jàmbur fekk alxuraan du loolu da ngay xool bu baax càmbar xóotal sa xel nga doog a jëriñu borom bi ne yoo ak lu nekk ci suufam wala ci kawam lépp moom yàlla moo ko moom lu ko neex mu joxe ci misaal mu ne misaal yooyu yàlla di joxe ci alquran fa amma alladina amanu bu fekkee ñi gëm yàlla fa yaalamuuna ñoom dañuy xam ne lii yàlla di joxe misaal annahu moom alxaq mooy dëgg lépp lu yàlla joxe misaal rek boo ko jëlee càmbar ko xool ko da ngay gis ne dëgg la dañuy yëg ne ñooñu ñu gëm yàlla gis na ku gëm yàlla ku gëm yàlla waxu yàlla da koy yokk si yàlla diglee da koy yokk bu yàlla teree da koy yokk ñaar yépp a koy yokk ndax tere bi day bàyyi yokk digle bi day des yokk ñaar yépp a koy jëriñ bu fekkee ab yéeféer la nag mooy ñaar yépp moom amulu ko njëriñ jullit nag ñaar yépp da koy amal njëriñ yaqulu jalla wa ala buur bi nee na fa amma alladina amanu bu fekkee ñi gëm yàlla waxoon nañ leen bi passé lan mooy ngëm di jar ñu baamtuwaat ko fa yaalamuna ñoom dañuy gëm xam annahu lii buur bi di wax yàlla alxaq alwaajib althubut alladi yuxillu al aqla adamu wujudihi dañuy xam ne lii mooy dëgg dëgg gi nga xam ne moo am moo war nit gëm ko dëgg goo xam ne moo war a occupé ci xelu doomu aadama mu xam ne lii yàlla wax sudul moom du nekk loolu mooy annahul xaq lii dëgg la yàlla xooloo wala dara rek ne la lii nangam rek nga daal di jëfe ne dara nekk ci déedéet ah kay yàlla xooloo wuñu lu amul njëriñ lépp lu yàlla ne xool leen bu ñu xoolee rek gis nekk am na lu ci nekkoon moo tax yàlla di ñu xooloo place yi wala mbind mi wala sunu bopp même ci sunu bopp mu ne wa fi anfusikum afala tubsiruun xool leen yéen rek seen bopp doomu aadama rek na xool boppam am nañu bind benn waaye bu bind téere al insaan zalika al maxluq al ajib keneen bind benn téere bind tuure ko al insaan zalika al maxluq al majhul doomu aadama mbindeef moomu nga xam ne dañ koo réere kii ne doomu aadama mbindeef moomu nga xam ne dafa yéeme nit mbindeef mu yéeme la ba léegi nit xamagul boppam fi mu nekk ni koo ne yow yow yaay kan bay bay bay bay Moodu jàlla loolu la xam ci moom boppam terminé mbindeef doomu aadama ni ko yàlla bindee bindeef mu doy waar boo ñëwoon ci bindu doomu aadama xam ne yàlla mooy yàlla lépp loo jàpp di ko toj di ko tas ni ko yàlla defaree da ngay xam ne yàlla mooy yàlla kenn mënul nekk yàlla ku dul moom te la nga ci jël mooy yàlla dafa am xam-xam te xam-xam ci moom la yem ci moom la tàmbalee ci moom la yem moo tax mu ne wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay'in ilma lépp yàlla da ko wër ndomba ak xam-xam la ko yàlla wëre ah lépp yàlla da kaa wër ndomba ak xam-xam wa anna allaha qad axaata bi kulli shay bàyyiwul dara de bi kulli shay ilma lu mu mën a doon rek yàlla xam-xam la ko peege yow fii yow loo peege lii sa système sa lii noo ko peege say xalaat sa lee yàlla nag ilma dañuy saa nga demee na non affaire bi système la am yow comprendre goo système bi dañ saa nga dégg loolu yàlla nag moom lépp loo gis xam-xam la ko peegee nit ñi nag ñoo yor ay ta ay taqale lu tax parce que yàlla moo am xam-xam yàlla nee na yéen tuuti ngeen xam ci àdduna wa ma utitum min al ilmi illa qalil yéen lu tuuti ngeen am ci xam-xam tuuti la doomu aadama xam te doomu aadama yaalamu zahiran yaalamuna zahiran min alxayaati dunia doomu aadama tuuti la xam tuuti rek ci li feej nii ci kaw àdduna ci la doomu aadama di tiitaru di di rëy rëylu ak di jéem a wane lu kenn xamul fekk doomu aadama li mu réere kenn xamul nu mu toll doomu aadama tuuti la am xam-xam tuuti tuuti buur bi nee na ñooñu gëm yàlla dañuy xam ne annahu li alxaqu dëgg la min rabbihim mu ngi bàyyeekoo ci seen borom mi leen yar dundal leen di leen màggal di toppatoo seen mbir di ko régler loolu mooy rabb rabb mooy ki la yar moom la sa lépp mu la koy defal loolu mooy rabb baatu rabb loolu lay tekki kon nag yàlla la borom bi tabaraka wa taala mu ne pour ñu xam ne moom moom mooy yàlla tabaraka wa taala mu ne man maay seen borom jàng nañ rab lu bare bari jàng nañ rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yàlla mu ne maa moom mbindeefi sant ñeel na buur bi moom mbindeefi jàng nañ bi rabbin naas yàlla mooy borom nit ñi moo leen yar jàng nañ rabbul alamin gis nga yàlla mooy yar mboolem àdduna bi ni'amihi ci xéewalam moom yàlla tabaraka wa taala xoolal ngelaw li ñuy nooy xoolal jant bi lim ñuy jëriñ xoolal suuf si xoolal asamaan xoolal taw bi xoolal meññeef yi xoolal li ñuy lekk biir géej lépp yàlla tabaraka wa taala moo ñu ko indil moo tax mu ne moom yàlla annahu lxaq min rabbihim doomu aadama yi jullit yooyu dinañ gëm xam ne lii ci yàlla la bàyyeekoo moom yàlla man min rabbihim moom yàlla mi leen bind moom leen mu ne wa amma alladina kafaru bu fekkee yéeféer yi noonu yàlla yi ñi nga xam ne gëmuñu yàlla bu yàlla joxee misaal yàlla di leeral ay mbir fa yaquluuna dañ naan maada araada allahu bi hada mathala waaw yàlla moom lu mun na mu wax ci misaal yi muy wax ndeysaan yàlla misaal yi muy joxe moom yàlla lan la ci bëgg wax waay moom lu mu ci namm waay waaye buur bu toll na yàlla est-ce que warul dépasser muy joxe misaal ci ay yoog ay mbaam ak ah ay xorondom ak ay nag ak ay mbindeef moom yàlla est-ce que warul dépasser lool yéeféeri ñoom loolu la ñuy wax fa amma lazina amanu bu fekkee ñi gëmoon yàlla la ñoom bi ñu déggee misaal yi ñoom lan la leen jëriñ kon fa yàlla mu ne annahul xaq min rabbihim li kat sunu borom moo ko wax dëgg la waaye wa ama lazina kafaru fa yaquuna maada arada allahu bi hada mathala lan la yàlla tabaraka wa taala namm ci misaal yi muy joxe yàlla lan la namm ci misaal yi muy jox doomu aadama yi alaysa kazalik alhamdulillah borom bi tabaraka wa taala mu ne misaal yooyu yàlla di joxe yéeféer yi di laaj naan lu tax yàlla di ko joxe yàlla mu ne yu dillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira yu dillu bihi dina ci sànku kathiran lu bare bari ci ay doomu aadama danañ sànku ci misaal yi yàlla di joxe waaye wa yahdi bihi kathira yàlla dina ci jubal ñu bare bare bare bare bare bare ñan ñooy sànku ci misaal yi yàlla di joxe mooy yéeféer yi parce que misaal yi du leen jëriñ dafa leen waroon jëriñ mais dootu leen jëriñ ndax dañuy toog di discuter di werante ah di def defle nangam nangam lu tax ba alkande fekk leen ci waaye ñi gëm yàlla moom dañ naan sami ina wa ataana rek yàllaa ko wax ñu ne waa ñu ne gëm nañ jeex na ñoom dootu fa nekk di di discuter moo tax bépp misaal bu yàlla di joxe ku ko gëm rek di nga ci yokk mais ku ko weddi rek di nga dalay sànk bépp misaal bu yàlla di joxe ku ko gëm di ko def dalay yokk moo tax mu ne wa yahdi bihi kathira waaye képp ku ko weddi nag yu dillu bihi kathir da ciy réeral ñu baree bari fi mu nekk ni am na doomu aadama yoo xam ne li leen sànk mooy naan dañuy gëstu fan la yàlla nekk est ce que yàlla am na ne dañ koy gëstu est ce que yàlla am na waaw topp ay théorie topp théorie di dem di dem di dem ba fan lay teeree ñoom ñu ne yàlla amul ñu daal di ate waaw dindi yàlla ci seeni xol sooy wax ak ñoom sax am na benn professeur bu musa dugg ci benn classe ñoo fekk ñu bind bismillahi rahmani rahim mu jël dàllam gauche effacé ko bismillahi rahmani rahim dàll gauche bi la jël effacé ko daan ne sama classe bu ko fi kenn bindee te yàlla am na yàlla amul dàllu gauche am la ko effacé kooku sànku na wala sànkuwul kooku alku na moo tax bépp misaal bu la yàlla joxe yàlla joxewu ko pour hasard misaal bi am na ñu mu yokk seen ngëm yàlla waaye am na ñoo xam ne dañ cee jógee sànku xoolal is juddug isa am na ñu ko gëm daal ciy jub mais am na ñu fa jóge daal di sànku ba yowmal qiyaam dootuñu baaxati ndax yàlla ba mu leen joxe misaal lu ñu wax dañu ne isa doomu yàlla la loolu moo leen alak useyru ba leen ko yàlla dekkilee mu dem moom mbaamam lu ñu wax Uzayr ibnullah Uzayr doomu yàlla la ñooñu misaal bi jëriñu leen waaye xoole Ibrahim ba mu ne yàlla yàlla wan ma nooy dekkile ku dee yàlla mu ne ko awalam tuumin qaala bala walakin li yadma inna qalbi xanaa Ibrahima gëmoo mu ne ah kay damaa bëgg sama ngëm gi dëgër sax daa di dëgër këj pour ma mën a yokk yàlla ne ko jëlal ñeenti picc yu bokkul famille nuróowuñ jëlal ginaar jëlal kanaara jëlal pitax jëlal jàmbu jóob nga rey leen boo leen reyee nga jaxase leen ba mu jaxasoo nga saam leen ñeenti saam nga taxaw fële daan ne ginaar ñëwal ci kaw montagne bi Ibrahima daal di rey ginaar rey yi ko yàlla wax yëpp mu jaxase yàpp yi jaxase dunq yi jaxase tànk yi jaxase bopp yi mu daal di koy saam mu taxaw fële ne ginaar ñëwal ñeenti saam yi bu nekk yàpp ginaar bi fa nekkoon daal di daw branché ginaar daal ne kokuri koog dem yoonam benn bu nekk mu woola sa yàpp daw ci saam yi daal di jaxasoo daal di sab sabbal boroomam dem yoonam ba yëpp jeex Ibrahima loolu lu mu ko yokk ah Ibrahima imaanam daal di sax moo tax ci Ibrahima yàlla bu muy tàgg Ibrahima lu mu wax inna ibrahima kaana umma ibrahima rek nation la ci ngëm yàlla ci tawxid ndax yàlla da ko teg ay nattu lépp ibrahima génn ko moo tax mbokk yi misaal yi yàlla di joxe di hasard am na ñoo xam ne misaal yi da leen di yokk am ñoo xam misaal yi da leen di alak yàlla joxe na ci balaam bun baura daal ne misaalu balaam mu ngi mel ne kalb xaj xaj day yalkat rek xoolal day yalkat ah yàlla joxe ne misaal ci waa ji waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla mën na dekkil yax bi ëllëg yowmal qiyaam mooy waayil ñëw ba ci yonent bi teg yax bu fënax mu ne ndax yàlla mun na ko dekkil fi mu nekk ni am na ñoo xam bu ñu demee ci bàmmeel yi ñu gas nga gis yax génn nga dégg nga dégg am koo xam ne xelam naan moom est ce que yax bi dina nekkaat nit man yuhyil idama wa hiya ramim lan la yàlla toon qul yuhyiha alladi anshaaha awala marra wa huwa bi kulli xalqin alim gis nga sànq li ñu doon wax ci xam-xam xoola aaya bi xam nga ci xam-xam lay wax ah aaya bi ñu wax nii du ci xam-xam lay wax lu ko yàlla jeexale xam-xam wa huwa bi kulli xalqin alim gis nga bu ñu doon xool alquran aaya yi fu muy jeexee sayid xawa loolu lay wax mu ne li gën a garaaw mooy ngeen di jàng alquran du ngeen xool aaya yi fu muy jeexee yàlla bu jëlee aaya aaya buy wax ci nature bi wala muy wax ci géej wala fu muy jeexee rek mooy mu yëngal xelu doomu aadama yi mais gis nga bu jëlee tawxid di ci wax fu muy jeexee rek mooy ci imaan yaaye li mu yàlla li muy jeexalee suy wax ci xam-xam aaya buy wax ci xam-xam buy jeex ak aaya buy wax ci tawxid wala aaya buy wax ci fiq pour jaamu yàlla feew aaya du nuru bu nekk ca la ngay wax buy fee rek mu dóor la yàq bi loolu nag il faut ñu ci xalaat bu bëree bëree bëree bëree bëree bëri ñu xam ne kii doon wax lii doon ko wàcce mooy sunu borom moom yàlla tabaraka wa taala mu ne wa yahdi bihi dina jubal ci misaal yooyu kathiran ñu bari waaye mu ne wa maa yudillu bihi du sànku ci aaya yooyu ci misaal yi illa alfasiqin lu dul kaccoor yi ñoom dong ñoo ciy sànku kaccoor yi sama gars yéen a ngi nelaw de xanaa coupure bi da leen a arrangé da ngeen di profité ci coupure bi borom bi tabaraka wa taala nee na aaya yi wa maa yudillu bihi du ci sànku illa alfasiqin lu dul kàccoor yi ñoom dong ñooy sànku ci misaal yi yàlla di joxe kan mooy fasiq alxuruj an ittaa mooy alfisq mooy alxuruj an ittaa kàccoor mooy ku génn ci topp yàlla rek kàccoor nga waaw ku génn ci topp yàlla kàccoor nga ak kooma la doon léegi-léegi nga dégg ci réew mi ñu ne diw kàccoor la loolu nag léegi pour nga dëggal ko da ngay xool rek waa ji ñu ne dafa kàccoor la ndax moom dafa génn ci topp yàlla bu ne ku génn ci topp yàlla rek kàccoor la wal fasiquun humu taarikuuna li amrillahi taala kàccoor yi ñooy ñi bàyyi santaane yàlla tabaraka wa taala lan lañ bàyyi bil iman dañoo bàyyi ngëm amuñu ngëm yàlla wal amalu saalih duñ def lu baax loolu moo tax ñu nekk ay kaccoor bi ñu bàyyee ngëm yàlla bàyyi jaamu yàlla tabaraka wa taala lan lañ dugg mooy bokkaale ak mooy yàlla moo tax ñu tuddee leen ay kaccoor kaccoor lañ looloo tax mbokk yi ñu góorgóorlu bu baax a baax ñu bañ a nekk ay kaccoor kàccoor mooy ku génn ci topp yàlla képp ku génn ci topp yàlla rek kàccoor nga borom bi tabaraka wa taala nee na suñ buggee xam ñan ñooy kàccoor yi yàllaa ngi leeral ñan la pour ñun ñu nekk fi ñu mën a xam ñun ci lañ bokk wala bokkuñ ci képp ku bugg a xam sa bopp ne yow kàccoor nga wala doo kàccoor déglul yàllaa ngi leeral ñan ñooy kàccoor yi gis ngeen li ma doon doon def ne ci gravité alquranul karim gravité gi mu graw gis nga yàlla bi muy wax zalika alkitab laa rayba fii hudan lil muttaqin yàlla leeral na ñan ñooy muttaqin wala leeralu ko yàlla leeral na ko gis nga yàlla tabaraka wa taala chaque jour chaque jour su waxee mbooloo groupe mbooloo moom du leen bàyyi lu dul mu leeral ñoom ñooy ñan fii ni bi mu ne wa maa yudillu bihi illa alfasiqin aaya yi du ci sànk misaal yi yàlla du joxe du ci sànk lu dul kàccoor léegi nag muy wax ñan ñooy kàccoor yi dinañu jëriñ nag ñun ñu xool suñu bopp mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yanquduuna dañuy fecc ahadallahi kóllëre gu ñu kóllëranteeg yàlla dañ koy fecc alladina yanquduuna ahadallah ñiy fecc kóllëre gu ñu wax ak borom bi tabaraka wa taala alladina yanquduuna ahadallah allahu akbar an naqd alxal baada baadal ibrahim mooy fecci ginnaaw bañ ko fasee la ñu waxanteeg yàlla ñun de nangam danañ ko def ñun de incha allah pare nañ pour def nangam ñu wax koog yàlla ba mu dëgër yàlla di xaar ci ñoom ñu def loolu xam nga fu ñuy mujje mooy maam yàlla ku bëri yërmande la yàlla ku bëri yërmande la foofu la ñuy mujje yàlla daa bëri yërmande ah yàlla de sunu maam la dañuy nax rek yàlla du lakk kenn foofu la ñuy mujje alladina yanquduuna ahada allah ñi nga xam ne dañuy fecc la ñuy waxanteeg yàlla tabaraka wa taala min baadi mithaqihi ginnaaw bañ ko takkee fas ko wax ko ba siñante koog yàlla dañuy deltu ginnaaw di ko fecc kan moo gën a bon kii kuy fecc li wax loo wax ak yàlla loo xam ne sax waxuma la wax ngeen ko nii rek mais loo xam ne kaseeg signature a ngi ci ñun ñëpp lan la ñu waxante woon ak yàlla ci alamul arwah ba yàlla waxee alastu bi rabbikum lu ñu waxoon bi yàlla ne ndax duma seen borom ñun ñëpp lu ñu waxoon balaa ah kay yàlla yaay sunu borom ñëpp a yuuxu woon keroog ñu ñëw kaw suuf suuf neex aduna daan ñuy jay ñu ëpp ci ñun daal di weddi yàlla nekk ci lu leen neex yaqulu jalla wa ala buur bi ne allazina mooy ñi nga xam ne yanquduna dañuy fecci ahdallahi digu yàlla ma ahada bihi ila nnaas min al imaani wa taati wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam li ñu waxoon ak yàlla li yàlla waxoon ak nit ñi ci ngëm yàlla ci topp yàlla ak ci gëm yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñun ñëpp ñu daal di ñëw kaw suuf ñu weddi li ñu waxante woon ak yàlla te mooy ngëm te mooy topp ko te mooy dimbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci woote bi ñun ñëpp ñu ñëw réew mi neex ñu daal di fàtte yàlla. dafa am benn benn waay boo xam ne Île Maurice la dëkk mais ci Sénégal lay dund dafa bind benn téere di ci wax lu garaaw. waa ji gëmul yàlla sax li muy bind sax jaaduwut. mais léeg-léeg nga jël ci ay misaal yu garaaw dafa am benn téereem bu mu ne yàlla dafa organisé woon benn fête de l'indépendance mu ne nation yi xeet yi di défilé ci kanamu yàlla mu ne maliens yi ñëw yàlla jóg taxaw tàccu leen gambiens yi ñëw yàlla jóg taxaw tàccu leen français yi ñëw yàlla jóg ta mu ne mu ne nation bu ñëw rek yàlla day jóg taxaw daal di tàccu mu ne waa Sénégal ne tëll yàlla moom jógul dafa toog rek tàccu nit ñi ne ah yàlla lu tax jógoo mu ne bu ma jógee ñii dañuy toog sama place dégg ngeen wax bi nu mu grave est-ce que dégg ngeen fi muy waxee ndax sénégalais yi dañuy grave xam nga waa ji lu mu wax sax jaaduwut mais dafa joxe foofu misaal bu garaaw ci sénégalais yi ni ñu mel ci gravité bi ñu garaaw mu ne ba ñu ñëwee ñëpp nation yëpp yàlla day jóg tàccu leen sénégalais yi ñëw yàlla toog tàccu ñi ne ko waaw yow yow jógoo taxaw ñi mu ne ñii yu ñii bu ma jógee dañuy toog sama place wax na dëgg ñii bilaay bu ñu gisoon yàlla toog ci place am ñii liñ ñemee wax ak liñ ñemee def sénégalais yii allahu akbar yéen lii xew ci Sénégal sax du ngeen ko dégg du ngeen ko gis kon mooy ñi nga xam ne alladina mooy ñi nga xam ne yanquduna dañuy fecci ahdallahi dig bu ñu digganteeg borom bi tabaraka wa taala min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko fasee takk ko yeew ko ba mu dëgër këj yemuñ ci lool de waaye wa yaqtauna dañuy dagg maa lépp loo xam ne amara allahu bihi yàlla joxe woon na ndigal an yusal nañ ko jokk yemuñ ci sax ci fecc ko lëre yàlla mais dañuy fekk yàlla lu mu ne nangam ak nangam def leen ko ñoom ñu dagg loolu coupé ko wa yaqta'una dañuy dagg maa lépp loo xam ne amara allahu bihi yàlla santaane na ko min idaamatil iman ci saxal ngëm yàlla wa tawxid ak kennal ko wa taati ak topp ko wa silatil arham ak jokk mbokk lépp dañ koy dagg te nit ñi bu ñu daggee ndigal gi yàlla joxe seen digganteeg yàlla lu fiy desati bu yàlla ne na ngeen gëm yàlla gëmatuñ bu yàlla ne na ngeen ma wéetal wéetalutuñ yàlla dañuy bokkaale bu yàlla ne na ngeen jokk mbokk su ngeen amee ay mbokk na ngeen ko jokk ñun ñuy dagg mbokk lu fi desati li mooy aaya bi wa yaxta'una dañuy dagg maa lépp loo xam ne amarallahu bi yàlla joxe woon ndigal an yuusal nañ jokk loolu nañu julli nañu jaamu yàlla tey ci Sénégal ban jàkka ngay dem jullee fa suba ba jàkka ji fees comme ni muy feese vendredi wax leen ma benn jàkka la ma xam yéen ñi ci biir jumaa ji jàkka ji wax leen ma ban jàkka la ñuy jullee fajar mu fees comme jumaa yéen laay déglu de ci Sénégal nag laa wax nag ci Sénégal wax leen ma bañ jàkk la ñuy jullee suba comme ni ñuy jullee juma wax leen ma ko fu mu nekk kon ñëpp noppi nañ mooy amul bu fekkee subaadul fees nag tisbaar waxi noppi tàkkusaan timis gee jàkka daal bu ci gën a baax moom yenn saa yi nga fekk fa juróomi sàppe moom jàkka jooju moom macha allah jàkka jaa ngay dund juróomi sàppe dafa am ay ay ay benn as organisation islamique bu nekk Ziguinchor mu ngi mu ngi Casamance Amma la tudd Amma dafa am ay gars yoo xamante ne dañ faa dem rek ne dañuy waaraate quoi ay waaraatekat lañ arab yi di leen jox xaalis ñuy bind ay lettre rek naan fii ñëpp tuub nañ fii macha allah ñëpp jullit lañ fii kay alhamdulilahi rabbil alamin dëkk bi ñëpp jullit lañ léegi nag lettre yi daal di bëri benn waay bi nga xam ne moo jiite woon ONG bi nekk Koweït mu ne yéen xaaral leen ma dem Ziguinchor dégg naa foofu tabax li ñu fa tabax jàkk année bi li ma fa financé ci jàkk te nii yoon nañ ma ñëpp jullit lañ xaaral ma dem mu ñëw rek premier jour mu dem jàkk fajar mu gis Elimaan ak Bilal ak ñeenti nit tisbaar jot mu dem jullee beneen jàkk mu fekk fa juróomi nit tàkkusaan jot mu dem beneen jàkk fekk fa kenn ilimaan sax ñëwul timis jot mu dem beneen jàkk fekk fukki nit ak juróom gee jot mu dem beneen jàkk kenn ñëwul mu dajale gaa yi mu ne waa yéen ana jullit yi gaa yi ne ko non fii gaa yi seen kër yi la ñuy jullee mu ne kon kay nañ toj jàkk yi kon kay bu fi kenn waxati nañ tabax jàkk gis nga imagine leen ay jullit yu dul julli jàkk est-ce que ay jullit lañ tey Sénégal lan la ñuy wax lu ñu bind ci constitution bi quatre-vingt-quinze pour cent musulman loolu lañ bind mais loolu fan la nekk ci ay kayit kese ci kayit kese la nekk de nekkul ci jëf yi nekkul ci diine bi borom bi ne yemuñ ci fecc ci kóllëre gu ñu wax ak yàlla ginnaaw bañ ko dëgëralee yemuñ ci dagg li leen yàlla joxoon ndigal nañ ko jokk waaye wa yufsiduna fil ard dañuy yàq suuf wa yufsiduna dañuy yàq fil ardi suuf tey ci ñun suñ nee suuf si dañ koy yàq ifsaadul ard yakunu bil kufri wa irtikaabil maasi yàq suuf lan moo koy def mooy def fi bàkkaar ak mooy yàlla loolu mooy yàq suuf léegi nag suñ nee yàq suuf kenn jàpp ne xanaa yàq suuf day mooy jël sa foos gas ko ci suuf si am nañ kenn ci ñun ñoo xam ne xelam foofu la jëm keneen danaan waa yàq suuf moom nuñ koy defee xanaa mooy tilimal suuf si sotti ci mbalit tiitit xam ngeen la mooy yàq suuf si mooy joxe fi ay carte xale jigéen ne leen jaay leen seen bopp loolu day yàq suuf si xam nga leen mooy yàq suuf si mooy jëlal xale yi góor yëpp def leen ay bërekat xam nga lan mooy yàq suuf si jël xale yi góor yëpp def leen ay musiciens jël xale yi jigéen yëpp futti leen di leen dangalloo ak di leen paccal am ngeen paccal ak di leen ah yooyu ngeen xam yooyu ngeen xam yooyu loolu mooy yàq suuf si bu kenn yaakaar ne yàq suuf mooy tuur fi mbalit déedéet yàlla dépassé na lool gis nga doomu aadama yi ñu ngi yor xeet yu ñuy yàqee suuf si ci ay réunion ay étude xoolal ki nga xam ne su ñëwee ci hôpital bi day jaay day jaay paracetamol day jaay tablette bi su ñëwee ci dëkk day indi conteneeru capote maye ko nit ki bu ko nee sama bopp a ngi métti paracetamol lu muy jar benn benn lu muy jar juróomi dërëm du dëgg bu ñëwee di la may capote boo xam ne 150 lay jar mu may la ci 100 kooku lan la namm te boo demee hôpital ni damaa feebar ñu ne la jëndal paracetamol kenn du la ko may ñu koy jënd boo ñëwoon léegi daal di laaj waa ji ne ko amu leen kii naam naam mu ne am nañ kay amu leen kawas mu ne ah kay ah kay daal la ñaata nga ci soxla nga ni benn ba mu ne noonu ba may la 100 gis ngeen loolu ci lan la bokk est-ce que loolu day defar suuf ki ngeen ki nga ubbil bunt ne ko demal nga njaaloo ji xale bu jigéen bi nga defal carte ne ko demal nga jaay sa bopp ba pare tabaxal leen ay hôtel ba pare tabaxal leen ay ah ay héberge loolu yow loo bëgg yow da ngay defar ah tefesu géej gi nga rafar ba mu rafet def ci ay mbaar ni ñëw leen yaakaar naa déggoon ngeen ci temps yee passé kii yóbboon jabaru jaambur tëngéej nekk faak moom daal mu daal di fay dee ndaw si daw ñu ngi doon wër ndaw si déggoon ngeen ko yéen ñëpp fu mu mujjee fu mu mujjee waxaatuñ ci dee ah wala loolu ci Sénégal di loué ay auberge di yóbbu doomu jàmbur yi ak jabaru jàmbur yi ci ay borom kër ay kilifa ñii di tàggoo dañuy ziyaara ji maa ngi dem siyaar ñii di tàggoo maa ngi gàmmu ji ñii di tàggoo maa ngi fekk yoo foo jëm oustaz keroog mu may nettali benn xale bu jigéen boo xam ne daa bokk ak benn waaye oto waaye ne ko yow foo demoon eh damaa màggali woon mu ne ko fii mooy yoonu màggal bi jóge mbuur naan dangaa màggali gis ngeen mu ngi nii keroog di ma ko nettali mu ne ko fii mooy yoonu Touba ah gis nga buñ nax suñu bopp buñ nax suñu bopp mbokk yi yàlla nee na suuf si kenn du ko yàq wa yufsiduna fil ard ñooñu dañuy yàq suuf yàlla mu ne ulaayika ñii ñoom ñëpp boo leen boolee groupe yi ma lim hum ñoom alxaasiruna ñooy ñi perte ñan ñooy ñi perte mooy alladina yanquduna ahada allah min baadi misaaqihi wa yaqtawna ma amara allahu bi an yusal wa yufsiduna fil ard yaa nee na ñetti groupe yi boo leen boole humul xaasiruna ñooy ñi perte ñi nga xam ne dañuy fecc li yàlla ne nañ bu ko kenn fecc ñi nga xam ne dañuy dagg li yàlla ne nañ ko jokk ñi nga xam ne dañuy yàq suuf yàlla nee na ñetti groupe yi ñetti mbooloo yi boo ci mën a bokk yàlla nee na ñii perte nañ ëllëg yowmal xiyaam te mbokk yi ku yàlla ne perte nga ku gëmul ne kooku perte na sax yow perte nga ku yàlla ne kii dafa perte ku gëmul ne kooku perte na yow ci sa bopp perte nga ku yàlla ne day dugg safara ku gëmul ne kii safara la jëm yow mi ko gëmul safara nga jëm ku yàlla ne kii texe na ku gëmul ne kooku texe na safara nga jëm kon lu yàlla wax mooy dëgg incha allah mbokk yi ci kàttanu yàlla ci aaya bi la ñuy yem ba samedi bi ñëwaat lu ci jub ci yàlla la bàyyeekoo bu amee ay njuumte am ndongo daara moo doon wax doon fàttalante ak yéen ñu ñaan yàlla yàlla jéggal ñu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bu amee ay question incha allah